billahi min alsheytaan arrajim la hawla wala quwata illa billahi alali alazim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala bokki fondation maam alxaaji rawxaan taala anhu seen bokkum taalibe seen xarit seen soppe abdul qadir ngom moo leen di daara nekk fii ci daara maam alxaaji rawxaan ngom gën a xam daara ji ci nuurul huda ci ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp fa tabaarakallahu di ñaanal ñëpp di sàkku ci ñëpp ñaan di ñaan suñu borom weeru koor waa dem ni ñu koy waxe yàlla na yóbbaale suñuy ñaawteef te bàyyi ñu fi buy dellu si waat fekkaat ñu fi macha allah ñaan yàlla nañ ko woraat déwén yu bari yàlla bu mu nekk suñu mujj koor di ci ndokkeel ñëpp nag rawatina fan yum fukki fan yu mujj yi ñu nekk bokki jullit yi di ci soññ sama bopp rek di soññ julit yëpp ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan waxe te na ko nee na bu ñu mosaan dem ba yegg ci fukki fan yu wujj ci weeru koor wi daawul nelaw daawul bàyyi famem ñu nelaw heure bu ne rek mu yee leen jóg leen jóg leen jóg leen jóg leen jóg leen macha allah ndegam nag moom sallallahu alayhi wa sallam moo daan def noonu waxumala ak ñun kon nag luñ ci man ci taxawaay rek macha allah nañ ko def gën a yokk cawarte ji suñu digganteeg suñu borom ci jaamu yàlla yi yokk naafila yi yokk turu yàlla yi yokk alquran bi ñuy jàng yokk sarax yi yokk yërmande ji yëpp ñu dolli ko rek. wax fa tabaarakallaahu fan yi moom la ñu tudde itqun mina naar euh, képp koo xamante ne yàlla nangul na la ci incha allah daf lay gorel ci safara lool nag jarnalu na nekk kon ñu ngi soññi suñu bopp di soññi ñëpp bëgg del siwaat ci suñu bindu risaala incha allah tey ji mu tombeek ajjuma nekk juróomi fan ci weeru avril atum 2024 tombeek ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor wi mbokk yi weer wi da jeex na ba pare incha allah kon incha rabbul azza ñu fas yéene del si rek ci suñu bindu ñaan suñu farata ji ñu jëm fas ko yéenee defi muy àjjuma ji yàlla nañ ko yàlla nangul ak bépp farata boo xamante ni fas nañ ko yéene defaat ginnaaw gi xam ngeen ni ñoo ngi woon ci baabu ma tantiqu bihi l alsinatu wa taqidu bihi l xulub mu ngi woon ci bunt bi nga xamante ni li nga xamante ni daañ ko fas ci xol yi te di ko tudd ci làmmiñ bi ñu mu doon wàllu tawxid fan yii yëpp ñetti darsi yëpp ci la ñu nekk macha allah tey ji war a nekk suñu juróom ñeenteelu dars ci téere bi di téru risaala incha allah xam ngeen ni ñu ngi doon kañ rek ci turam yu màgg yi ak kawem yu melokaanam yi kawe yi ak turam yi nga xamante ni kawe na lépp lu dul moom ak turam yi nga xamante ni du dañ ñu koy waxtaane du dañ ñu koy bind waxante woon nag yaantu yàlla Moussa ta ja wa ba mu ko feeñoo ci leeram ya doj wa mujj nekk pënd fa tabaarakallaahu Moussa xam jóge fa saxal kon yàlla yow rek yaa nekk yow rek yaay kenn ñu tegoon ci ne xam ngeen ne alquranul karim wax yàlla la laysa bi maxluuqin nekk loolu lu ñuy bind ba muy jeex nekk loo xamante ne lu ñuy melal la moom alquran ba mu fiy jóge inchaa rabbul azza su waxi suñu borom la moo tax daf fi sax daa iman heure bu ñu déggee ne alquran jóge na fi rek mooy àddina jeex na tey jii ñu war a tombalee ci yi ñu war a gëm ci suñu xol mooy wal imaanu bil qadr boo ko jullit yi ñu war a gën ab dogal dogal dogalub yàlla waaw ñu war a gëm dogalub yàlla suñu mbokk yi dogal yooyu xayrihi yu yiw yi wa charrihi ak yu ay yi nga xamante ne yu yu maanaam yi nga xamante ne ay musibalaak ay deewak ak yëpp ñu war koo gëm xulwihi yi ñu war a gëm yu neex yi wa murrix yi ñu war a gëm yu wex yi te xam ni yii ñu fi nekk ak ci kaw suuf dogal yi ñun ñii ñoo tax yàlla nee na man lam yarda ala qadaa'i wa lam yasbir ala balaa'i walam yashkur ala naamaa'i suñu borom nee na xam nga nooy defam fal yaxruj naxwa sama wal yatlub rabban xayri yàlla nee na ku bëgg dund ci kaw suuf te nanguwoo sama dogal yi hmm? yii may àtte itam nanguwuloo cee ànd sama xéewal yi nanguwuloo ko sant yàlla nee na maa ngi lay ñaan rek génnal asamaan ak suuf nga wuti beneen asamaan ak suuf boo dëkk te boo fa jógee na nga wuti beneen borom bu dul man ndax man ku dëkk man ma lay tegi nattu waa gars yi xam ngeen ni dëgg dëgg dëgg nag Sénégal xam ngeen ni lii ñun ñëpp war nañ koo gëm suñu président bii ñu am bërki démb xam ngeen ni li dogalub yàlla gënu koo mën a rëy mbokk yi seetlu leen rek ume kaso ume koor biir prison ume koor biir prison war a korité biir palais xam ngeen loolu kenn mënu ko ko dul yàlla ume koor biir prison war a korité biir pale nekkoon prison nga xamante ne tey dañ la boole ci situation ci citoyen yi nga xamante ne yéen gën a nekk ci ay jafe-jafe ndax prison ku fa xam nga ne yaa ngi ci ay jafe kon booba yow bi ngay um koor gi <coughs> yaa nekkoon situation yaa nekkoon citoyen bi nga xamante ni yaa gënoon nekk ci ay jafe-jafe waaye gis nga bi koor gi di jeex fekk na la tey ji yaa nga pale nekk citoyen bi nga xamante ni yaay premier citoyen bokk yi loolu ku ko man ku dul suñu borom xam ngeen loolu dogalam la xët seet loolu rek ume koor biir prison war a korité biir pale allahu akbar bokk yi lii ko dañoo war a gëm ni ci dogal yàlla yi la bokk muy yu yiw yi ak yu naqar yi président Macky Sall bi fi ne woon mu ngi ume bi mu ngi ume koor biir pale avant koor gi di jeex nekkatul président ma ngi ci leneen kon bokk yi fokk ñu gëm loolu dogal yu yiw yu neex yi xéewal yi bu ñëwee ñu sant xam ni yàlla safaan yi bu ñëwee yit ñu xam ni suñu borooma xëyoon am amato xëyoon wér wératoo xëyoon nekk nangam ministre sàngam tey nekkatoo ko directeur généralu sàngam tey nga xëy nekkatuloo ko jàppal ni bi nga koy nekk sa borooma ko dogaloon tey jii nekkatuloo ko tamit na ngay dugg ci yi nga xamante ni dogal yu weex yi la génnee ci sa xel te xam ni ba ko suñu boroom di bindoo xoon naa ci darsa bële ni na nit ñi teey te ñu ñaan te xam ni ki yàlla dogal mu war jiite réew mi bi muy am six mois ci biiru yaayam fala ko yàlla fekk malaaka yi fekk ko fa dogal ni moo war a doon président xam ngeen ni jomaay fay mii ñu bari xamuñu ko woon ñu bari xamuñu woon kuy jomaay ñu bari yi tamit nag seen xel nekkul woon ci moom ndax ñaar nekk na ndaw beneen bi ci des it xool leen fa mu juddoo waaye gis ngeen Sénégal bés bu jot rek yàlla wan ñu kéemaan gis ngeen ñi jiite réew mi ba léegi mën a guñoo fexe ba am président boo xamante ni ma nga juddoo biir ndakaaru wala mu jóote ji ville yu mag yi déedéet président yi ñu fi amoon yëpp gis ngeen Senghor fa mu juddoo woon gis ngeen Abdou Diouf fa mu juddoo woon gis ngeen Ablaye Wade ca Kébémer gis ngeen Macky Sall ca Fatick tey jii gis ngeen fii Diomaye Faye nga fële ca séeréer yi moom tamit ndaga ñaaw allahu akbar kon biñ koy jëlee ci yow nga xam ni kon lii ci dogalu yàlla la Hmm? yu weex yi yu neex yi bu ñëwee nga xam ni yàlla dogal yu weex yi bu ñëwee nga xam ne suñu borooma wa kullu zalika lii lépp nga xamante ne xat xadarahu dogaloon nag allahu yàlla rabbuna na suñu boroom waaw waaw wa maqaadirul umur yi mooy dogal mbir yi mbir yi dogalu ci suñu boroom lay jóge de xam ngeen ni nekkul ci loxol nit tey jii am na yooyu bu nekkoon ci loxol nit du am ndax am na ñoo xamante ni bi ñu àndee ak ñi nekkoon tey jii ñii toog fii ci pouvoir bi am nañu yàkkam ci bàyyi leen ndax dañ ni booba ña ngi ca kaso ba ñii moom duñ fi tekki dara ñenn ñi yàkkam ci bàyyi leen hmm, seetal lii am na ñoo xamante ni dañ jàppoon ni ñii duñu falu ñoom nekkoon nañ ci di coow ba ñëpp xam leen ñu xëy jàpp ni déedéet ñii duñ fi faloo kon nag nañu dem ca ñañ yaakaar dañooy gañe ñu toog foofa ndekete yoo kii yore caabi dogal yi mooy suñu borom waaye du nit kon yëpp ci yàlla lay jógee wa masdaru haa ci moom lay gongi koo it moom suñu borom waaw an qadaihi ci ay dogalam yàlla mii alima kulli shay'in xam na lépp lu mu doon qabla kawnihi jëkk loola di nekk yàlla xam na ko ba dogal na ko ba pare yi tamit nag yàlla dogal na ko lépp lu mu mën a doon yàlla dogaloon na ko léegi nag fajara mu daal di daw ala qadrihi ci dogalam nag yàlla day xaar bés bi rek ñaan la goo xamante ni nangu nañu amin gi def nañ ko ba pare dogal bi am rek moom la ñuy xaar loo fi gis ci àdduna xamal ni suñu boroom dogaloon na ko ci yow ba pare waaw wala yakunu moo tax du nekk min ibaadi ci jaamam yi qawlun wax wala amalun du caa génn ab jëf illaa wax qad qadaahu lu dul booba yàlla dogal na ko bu yàgg wa sabaqa mu jiitu ilmuhu ci xam-xamam bu yàgg suñu boroom bii ci moom alaa dama ni yëgal lima lay wax nga nga xam ni yaalamu nga xam ni man xalaxa anakar moo bind ki bind xam nga ko wóoma al latif mooy aji ñeewente ji alxabiir mooy ki nga xamante ni moo dañ kumpa ci lépp yàlla xam na lépp moom suñu borom moo tax sufiyanke yi dañuy wax ni sax am Seydi Haj Malik ma ngi koy expliqué fële ca euh, kifaayatu raaxibin yaakaar naa ni nee na nit ki ñëw indi ki ñëw jekki-jekki ri tax la am pes te jëktawu leen dara wala mu saaga la wala mu def la lu la metti maam Seydi Haj Malik nee na jàppal ni lu yàlla dogaloon la ci moom mu war a jaar ci yow mais moom deful dara mais ki def mooy yàlla ci xam ngeen loolu niveau bu kawe la xam nga ki jekki-jekki sa biir kër mu ñëw indi la benn facture courant facture bi cher nga xool facture bi wëlbatiku ri tax waaj a pes ni ko sa facture bu cher bi waaja lu ci def moom dañ ni ko yóbbul facture bi rek comme dañ ni ko yóbbul facture bi mu nag moom mu indi facture bi yow nga pes ko moom deful dara facture bi ña ngi ko préparé fële ci usine ba suufiyanke yi dañuy wax ni nit ki lépp lu ko dal na jàpp ni la ko dal ak loole ak ku mu mën doon ci ku ma mën a jóge ba muy ñëw yàlla dogaloon na ko ba pare ndax heure bi dafa jot rek waa ji jaare la ko ci waa ji mu ak yàlla jaarale ko ci waa ji waa ji accident lay teg loola kon fa tabaarakallahu wa ahsanul xaaliqiina kon ñu bokk xam ni incha allahu macha allahu suñu boroom a ngoog moo yore mbir yi yépp ci loxoom la nekk tey ak ëllëg lépp luy daw fekk na booba suñu boroom dugal na ci kàttanam dogal na ko ca dogalam ya ba pare kon yàlla nañ yàlla boole ci jaam yi nga xamante ne daañu nangu ak dogalam bu yàlla dogalee daañ ci ànd bu ñu amee xéewal sant ko d'accord it ni suñu borom rek mooy suñu borom yàlla nañu yàlla boole defal loolu ki nekkoon ci darsi bi mooy seen mbokk seen xarit Abdul Xaadir Ngom incha allah ñaan suñu borom ñu fekk beneen àjjuma yàlla nañ ko yàlla boole